ñu bokk ñaan yàlla mi am jàmm te joxe jàmm yàlla nañu yàlla doolil jàmm ñu sant yàlla bu baax julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ñëw tey ci pàttali gi ci wax ji ak ci déglu bi def ko ak jaamu yàlla noonu ñu ko bëggee yàlla mi nangu yàlla na yàlla boole nangul a wax ji ak déglu bi def ko jaamu yàlla mu mel ni ñu ngi bëgg waxtaanee loo xamante ne lu nekk lu ñu xam la doonte bëgguñu ko ñemewuñu ko waaye min sunnatee xayaat dafa bokk ci dund bi muy lan al bala bala mooy lan nattu nattu dafa bokk ci dund bi amul xeet bu mos a ñëw ci kaw suuf lu dul am nañu seen wàll ci ay nattu amul it doom aadama boo xamante ne nekk na ci kaw suuf dund fi dund ba gàtt ak mu gudd lu dul am na ay nattu yoo xamante ne moom daj na ko ci dundam nit ki day jund juddi ànd ak ay nattoom doomu aadama bu ko defee lu ko dal ci kaw suuf mu xam ne lu ko waroon dal lu ko dalul moo xam ne waru ko woon dal loolu lañu ñu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama jàngal mu mel ni kon balaa toujours dama ne dafa am bala am bàkkaar balaa mooy nattu bàkkaar mooy li koy wàccee toujours yàlla ba mu ñu sàkkee jox ñu li ñu war a am yépp jox ñu xel jox ñu kattan jox ñu moye jox ñu man-man jox ñu pexe côté bu nekk mu suturaal ñu fa daf ñu rëddal benn yoon boo xamante ne buñ ci awee ñun ñépp mooy ne accident mën na am mën na bañ a am soog du am waaye bu ñuy jàddee ci ñàll yi ñu kereel suñu boppu problème kon balaa bàkkaar moo koy wàccee balaa bàkkaar moo koy wàccee mu mel ni nag bu ñuy dund ba fii ñu toll ñu am balaa bu wàcce ci ñun ñun ñëpp dañuy gëm ne dafa waroon am comme dafa waroon am nag ñëw na fekk ñu fi lenn rek moo am dafa am ñaari xaaj ci nit ñi mooy nit ku baax ki ak nit ku baaxul ki ki baaxul ki yàlla moom moo bëgg mu pini ko ndax mën na am mu delsi jaare fa baax ki baax ki yàlla moom moo ko koy nattoo ndax bëgg yokk ay darajaam kon nga jàpp ne kon balaa dina wàcc ci nit ku bon dina wàcc ci nit ku baax bi ñu am àdduna yépp a ko bokk ñépp tiit ñépp a jaaxle ñépp di moytu ñépp waaru lu des suñu borom ne boo leen jaaxlee ma wax leen ne fa firru ilallahi daw leen làqu ci man man mii seen borom xam seen situation xam li leen jaaxal xam fi ngeen toll xam li leen war te defu leen ko xam li ngeen di def te defloowuma leen ko boo leen jaaxlee ñëw leen làqu ci man fa firru ilallahi nañu daw làqu ci suñu borom nu ñu daway làqu suñu borom mooy jëm jéem a defal ndigal yim ñu digal jéem a bàyyi tere yim ñu tere mel ni mu ñu melloo ndax wala xad karram naa bani aadam la wax yàlla nee na man maa teral doomu aadama kon doomu aadama bu nekkee ci kaw suuf ba teddatul war naa seet boppam mu laaj boppam lu tax teraanga boobu ñu waxoon bugg a teggeeku sama kaw suñu borom ne yow la ndax dafa wax ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir lépp lu ñëw ci yéen nekk ay musiba yéen a ko faggu te yàlla nee na topp ma leen sax nag déedéet damay jéggale di jëllale bëree bëree bëri bu ma leen toppoon du baax nga gis ne kon balaa la wàcce na léegi nag lu ñu war a def ñun la fekk ci kaw suuf gëm nañ ne am na ay bàkkaar ku nekk ci ñun bu jàppee ne am na bàkkaar rek kon nga calculer ñaata doomu aadama ñooy dund ci kaw suuf boo ko boolee ñaata bakkaar lay doon mu dal di bari waxatuma la naa ku nekkee ci ñun li mu ci am ci bàkkaar ëpp na benn kon nga déggee ci ne bu fekkoon moniment bakkaar lañu tabax yéeg ci kawam dafa daanu bu daanoo nag dana am ñu mu yóbbaale dana am ñu mu gaañ dana am ñoo xam ne dañuy xoosu dana am ñu jóg faxasu waaye ku nekk da ciy jàngee ne ndekete yoo ki fi nekk mooy yàlla ndekete yoo aduna alal yoru ko aduna li ko yor mooy yàlla moo ko yoreel boppam ba ñu demee ba bëgg a fàtte loolu nag mu gis ne xuus nañ ci alal xuus nañ ci xam-xam xuus nañ ci nguur xuus nañ ci lu ne ku yàgg ku nekk yaakaar ne doole wala am-am wala xam-xam moo ko gar yàlla ne xaaleen ma ñëw mu yebal benn ah jursuum benn virus boo xamante ne moom sàkk na ko ne ko demal nga yel ma gaañi mu ñëw am ñu mu dugg am ñu mu ray ñu tiit ñëpp a jaaxle lu tax la allahum yarjoon ndax man na am bu ñu jaaxle ñu dellu ci suñu borom ndax suñu dafa wax ne zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bi ma kasabat aydinaat li yudiqahum baad allazi amilu waaye lu mu ci teg la allahum yarjoon nee na yàqute feeñ na ci géej feeñ na ci suuf ñu ko indi mu ne ndax li nit ñi fàggu mu ne loo cee teg mu ne ma dal leen nattu nattu bi pour lan la allahum yarji'un ndax ku ne dellu ci boromam comme xale bi boo ko cawee bu tiitee dellu ci yaayam wala mu dem lekku ci baayam lu tax daa yaakaar baayam daa yaakaar yaayam ñun ku ñu yaakaar yàlla la ñu yaakaar comme yàlla la ñu yaakaar nag fa firru ilallahi ñépp nañ dem làqu ci ginnaaw yàlla làqu ci ginnaaw yàlla nag mooy tuub balu ko ndax nit ki balaam la la aar nga la ko ci ginnawam dalay bal ba pare ñu balu yàlla tuub xamne am nañ ay bàkkaar bu kenn joxoñ kenn waye buñu toge ci kawsuf di tuumalante diw motax mu am ñom diw motax rew nanga motax mu am loolu yépp wax ju amul li am moy ne li yàlla ko dogal dafa waron am man nako jaarale ci loxo nak xeyna loolu man na am yàlla xam waye lu warul am du am kon dafa am dafa wara am ñu gëm ne nattu la bu yàlla indi la des mooy ne ñu fegu jëfe ndigal yi bàyyi tere yi fi ñu yem loo ñu yem fa liñ ñu def loo ñu def ko ñu ma dal di def li ñu wax mooy set setal suñu bopp nit kak wax naa balaa yaramam du set loxoom di set ngir mu jëriñ ko xolam day set li ñuy njëkk def mooy setal suñu xol yi ku nekk seet moromam la mu ko yore loon mu bako ñu bàyyi tuumalante beeg deflante beeg xaslante beeg dugg ci loo xamante ne yàlla bëgg ko buñ ca baree nag ñu tàllal suñu loxo suñu borom balu ko àq bu ñu baalee ñu commencé di ko ñaan guddi ak bëccëg mu teggil ñu balaa lii mooy li nga xamante ne bu ko ñëpp defee jàmm mën naa am yàlla mi am jàmm yàlla ñu ko yàlla defal defal ñu sutura képp koo xamante ne jot na ci balaa bi ñu ngi ñaan yàlla mu saafara ko fépp ku mu jotul yàlla bu mu jot fu mu yégul yàlla bu mu fa yegg yàlla na ko fi yàlla yemale fay ko ba mu jeex takk ku nekk jotaat jàmmam ndax ñépp a jaaxle ñépp a jaaxle yàlla won nañu ne mana ndax lii ku ci mënoon dara faj nga ko bu yàgg waaye amoon kenn ku la ne kaay ma faj ñépp a jaaxle kon nag bu ñu jaaxlee am kenn ku ñu yaakaar mooy yàlla lu ñuy def ñu dellu ci moom yaakaar ko bootu ci moom ne ko yaa fi sës xettali ñu yàlla subhanahu wa taala dinañu xettali kon muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen ku ne na joxoñ boppam ne bàkkaar bi tax lii am bokk naa ci am na lu ma def lu ma def nag naa dem jéggalu ko sama borom bu ma paree nag naa tegu ci siraatal mustaqim di def li ma war a def li ma war a bàyyi ma bàyyi ko lii bu ñu ko defee jàmm dana am bu ko defee muy réew mi muy réew bu manti nekk ñu yaakaar ne yàlla mi ko fa teg mën na ko faa teg yal nañ ko yàlla teggil ku mu jot te rey ko yal na ko yàlla yërëm dugal ko aljanna ku mu jotul yàlla bu mu jot ku mu jot yàlla nga wër fu mu yegguloon yàlla bu mu fa yegg fu mu jot yegg yàlla na ko fa yàlla yemale yàlla na ci yàlla def tawfiq dafal ñu barke ak sutura aar ñu aar njaboot bi kuy génn nga def liñ la wax génn heure yiñ la génn loo toog heure yiñ la toog loo di raxasu set l'islam dafa santaane set boobu lii ñëwagul sidna Muhammad depuis lu mat junnee at ak téeméer ñeenti téeméeri at diglina yi ñuy def yëpp joxonoon na ñu bu fekkee bàkkaar yi bari nañ lii dana am dugg na néegu soxnaam mu ne ah alkande mu ngi ñëw soxna si ne ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñun danañu alaku te ñu am nit ñu baax mu ne waaw mu ne ko lu koy waral mu ne bu mbon bare kon fu di dund ci kaw suuf gis nga mbon gi mu ngi sawet yaa ngi koy gis yaa ngi koy dégg ñenn sax yaa ngi koy def kon nag boo ko bawul nga xam ne ñu indi lii ci nga bokk yal nañu yàlla fa defal jàmm yàlla ñu yàlla bokk aar yàlla ñu yàlla suturaal yàlla ñu yàlla defal tawfiq nattu bi yàlla na ko yàlla yëkkati bu ko defee doomu ama du mu nekk rek mu yar boppam jël responsabilité am ku yore njaboot nga yar sa njaboot toog loo leen ci kër yi waaye toogaay bi it bañ a nekk toogaayu kese nit ëpp na di rey waxtu toogaay boobu mën nga ci profité li nga xam def ko ci sa njaboot muy xam-xam muy man-man diiraa bi ñuy toog ci kër gi def ko ci ñoom ñu xam ne yow tekki nga dara man nga dara am nga njëriñ tuubal dellu ci yàlla bi ñu gis ko nga nos leen ci yàlla mën na am bu ñu fi jógee rek ñu am formation boo xam ne dootuñ ko fàtte yàlla ñu toog ba di ko nettali ci Sénégal ak ci bitim réew fu waay mënti nekk ci bitim réew wala Sénégal ñu ngi ñaan yàlla sàmm ko yàlla mooy sàmm yàlla dina sàmm ñi nga xamante ne ñoom lay sàmm képp ku ci jot ñoo xam ne daf ci waroon jot yàlla dana ko aar wala mu faj ko ku mu yóbbu nga xam ne yàlla moo dogaloon ne ci nga war a jeexal nga gëm ne lii kenn mënul deete bésam jotul bu ko defé ñu ngi sant mbokk yi yépp di leen ñaax ci taxawaay bi rafet na lool ndax lii mooy njëriñ doomu aadama lii mooy njëriñ jëm seetal li nga man nga def ko keneen def li mu man bu ko defee ñu daje ku nekk am lu mu def boromam a ñu ngi leen di ñaanal yàlla taxaw leen dafa leen sutura li ngeen bëgg ci liggéey bi yàlla defal leen lu raw seen njort yàlla sàmm leen aar leen sàmmaale ñu aar ñu dafal ñu jàmm ci biir ak ci biti dafal ñu sutura ak tawfiq bu ko defee seen benn mbokk rek seen doomu ndey